romb moo tax benn nitu yàlla yàlla bu mag mos na laaj Mawlaay Cheikh Ahmadou Tijani Chérif ni ko lan mooy njëriñ ci aaxiru zaman imaam al mahdi bu ñëwee nit mën ko xam fekk boobu fekk boobu réew maa ngay tas ndax Cheikh wax na ni sama taalibe la ñëpp di wedd ñëpp di wedd ñi naan ñaan leen gudd fan bu leen fi fekkee da ngeen xam ni demewul noonu waaw ña di wax di wax ba benn mag ñëw ci moom ñu ko daal doy nga ma sëkk doy nga ma sëkk ci wàllu yàlla waaw yàlla jox na la lépp waaye léegi nag comme werante yi bari na dama la doon ñaan loo xam ni te te kooku du nitu du nitu tarix te Cheikh jox ko wér daf ko xam rek doy loo ko ñëw ñaan ni ko nag nan la ko nit di xàmmee imaamul maaj bi ca aaxiru sam waaw comme nañ ko laaj woon yonente Cheikh ni ko xam naa ni coow bi mel ne bu ma ne nangam lañ koy xàmmee boo génnee léegi mbokk yi nii dama bëgg dëggal sama bopp moo tax ma wax la nii lay mel cheikh ni ko comme alquran du naxe comme alquran du naxe jëlal guddi gu nekk bala ngay tëdd nga jàng bismillahi rahmani rahim subhanallazi asra bi abdihi laylan ba mu jeex mu ni ko di nga xam imaamal mahdi wala nga bokk ci góor gi ñetti fan la ko def gis imaamal Mahdi ci génn mu wax ak moom dalal xolam keroog bu mu génne jëloon wet bi ñu bari moo leen wax maa ko mu wax ma ni mi ngi ci ginnaaw moo la Cheikh de Tijani te loolu mi ngi valable ba léegi waaye secret alxuraan la ñu bari xamatuñu ko loolu mi ngi valable ba léegi subhaanallazi asra ila axir soo koy jàng ginnaaw ba nga jullee gee balaa ngay tëdd da nga xam imaamal maaj bi ci xàqul yaqin wala nga bokk ci ay compagnon mais yàlla dina la ko wat waaw mi ngi bàtt pour ba léegi waaye dafa fekk Mawlaay Cheikh Ahmad Tijaani li daloon yonent bi ci xadiisul xudsi moo ko dal ak borom téere yi mooy yonent bi am na lu mu wax ak yàlla te kenn fekkewu mu am lu mu ca nettali am lu mu nettaliwu Cheikh Tijaani yi la mu wax ak boromam waxtaan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam du lépp la nettali am na loo xam ni boo nekkul témoin oculaire de l'histoire sainte munoo ko fekk ndax waxu biir néeg waxu biir néeg la waaye xoolal gis nga ak kenn ci alxuraan ndax Mawlana Cheikh Ahmad Tijani Hakim dëgg la jox ko kàddu comme ña ngay coow mu ne ko léegi jëlal téere yàlla bi mu ngi jëlal téere yàlla bi da nga jàng mu ni ko lu may jàng mu ni ko dooral bismillahi rahmani rahim subhaana allazi asra ila ardi mu ni ko nan ka saxoo góor gi def ni ci xaqul yaqin la wax te te jël woon léer ci cheikh te du woon ci jàng benn tariqa la bokkoon waaye yàlla leeralal na ko te loolu mi ngi valable ba léegi la ni gis nga alquran suñu la waxee ni ci chahru ramadan la ñu ko ëmb indi basé wuñu rek uniquement ca tafsir ya nam koy fooge wala ci ñu di la rek jàng ci jukki dañuy bëgg nga di ci méditer ndax boo ci méditer rek dégg alxuraan boo ci méditer rek benn saar bi ngay jàng nga ni man de mokkal ma lu dul sootul ixlaas ñu ne yaa ngi koy xet xamuloo sootul ixlaas la mu ëmb kenn xamul nu mu toll nga di ci méditer di ci méditer di ci méditer ba am ci tawhid tawhid boo xam ne du yamal dara waaw ndax yëg nga ni yàlla mënul am njaboot yëg nga ni yàlla jurul yëg nga ni kenn jurul yëg nga ni kenn mënul toll moom te yëg nga ni kenn nga di ci méditer ba am tawhid nit jàng bàqara ba naa si dégg ko te amul tawhid kon nga yaa ko tane kon yaa ko